monsieur les les les ministres et vos collaborateurs ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di nuyu honorable député collègues yi nga xamante ne si ñoom ñoo fi nekk. monsieur le ministre du commerce de la consommation des petites et moyennes entreprises depuis la concertation euh, sur la vie chère avec le président Macky Sall qui avait abouti aux onze mesures j'aimerais vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a une évaluation par rapport à la maîtrise des prix Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça L'autre question, c'est par rapport au secteur des télécommunications. Monsieur le ministre, le secteur des télécommunications, on note souvent que dañuy def ay changement de forfait dañuy def ay augmentation de prix mais est-ce qu'il une régulation ou bien un contrôle allant dans ce sens pour permettre à la population sénégalaise de ne pas subir li nga xamante ne si moom mooy augmentation yooyu beneen par rapport au secteur de l'immobilier ci réforme yi wala ci mesures yi bokk dañu jëloon ay mesures yoo xam ne par rapport aux locations wax ne ñu def réduction bi ci réduction boobu ñu gis ne contrat yi nga xamante ne si c'était des contrat yoo xamante ne c'était en cours presque moom la gënoon a affecté mais les nouveaux contrats dañu gis ne bailleurs yi dañu gën a yéegal li nga xamante ne si moom mooy prix yi ñu lay laaj foofu yan mesure ngeen ci mën a jël par rapport à ça mën ko solutionner beneen bi ma jàpp foofu ne la problématique des surfaces corrigées gëm naa ne bu ko état appliqué woon selon le localités parce que da ngay ñëw gis quartier boo xamante ne si da doon fay ay quatre-vingt mille cent mille léegi c'est difficile d'avoir une location en studio à Dakar moins de trois cent mille est-ce que bu ñu appliquer en intégralité effectivement li nga xamante ne si moom mooy surface corrigée yi du permettre population bi ñu mën a euh, mucc ci li nga xamante ne si moom mooy augmentation yi beneen bi par rapport à la politique de l'autosuffisance alimentaire ñu gis ne état bi depuis votre accession au pouvoir yéen a ngi ciy dox yéen a ngi ciy wax may laaj foofu Sénégal yan produit ngeen arrêté jusque là di ko importer par rapport ak li nga xamante ne si moom moo dellu ci wàllu alimentation bi beneen bi monsieur le ministre gis nañ ne démb la hier vous avez réceptionné des véhicules allant dans le sens de mieux faire le controle bi nga xamante ne si moom moo war a nekk ci marché bi ñu Nous saluer et nous espérons que ces véhicules vont spécifiquement servir de contrôle des prix ñu bañ ko détourner ci yeneen objectif yi nga xamante ne si nekku ci beneen bi am na ku wax sànq ne par rapport ak li nga xam ne moom moo dellu ci prix yi ci ci ci domaine agricole bi du moins mu ne ñu ngi sant le président ci li mu def parce que prix yi jàpp nañ ne euh, agriculteurs yi du moins bu ñu bu ñu bayee seen i produits ñu ngi koy écouler mais li ma jaaxal moom fa mu dëkk ma ngay bay benn produit et pourtant keroog fii la ñëw ci assemblée bi ne dafa am problème stock muy laaj yi nga xam ne ñooy parlementaires yi pour mu jënd moo tax may wax mes chers gis nga ñi président Macky Sall bu ngeen ko bëggee jàppale da ngeen jox nga xam ne moo ne ci marché bi comme ça moom mu xam li nga xamante ne si foofu lay def ay solution il faut encaisser parce que bu ngeen bu nit ñi di wax lu leen neex ngeen di wax mais on encaisse parce que dañ leen di déglu monsieur le ministre bu ñu leen bëggee dimbale nga ne si moo nekk ci sénégalais ak li nga xam ne loolu la sénégalais li nga xamante ne si moom mooy problème mu beneen bi nga xamante laa bëggoon wax ba léegi monsieur le ministre beneen bi nga xamante si moom laa bëggoon a wax ba léegi ci wàllu commerce bi mu doon euh, ñoo xamante ne si jàpp naa ne war nañ leen mën a gën a mën a bàyyi xel ci li nga xamante ne si moom mooy seen liggéey mooy ñiy def contrôle bi parce que ils font un travail extraordinaire métti na ils sont sur le terrain un accompagnement de plus de permettre de mieux faire le travail pour mën a ngeen mën a def seen réussite